en tout cas mbir la moo xamante ne mbir mu garaaw la moom. macha allah waaw donc nañ ma jigéen. sooy dafa am ku fi ñëwoon war na def deux mois xaw ma un mois ci ginnaaw. Hmm. te jabaram réeroon fii la fekkoon élément bi fekk na dama goo woon nekk rek euh, waa. waa ji ñëwaat na ci boppam moom waa ji ci boppam <laughs> ñëwaat na parce que taayiwul waaw ñu dem. salaamaaleykum. waaye maa ngi lay baax yaa si jàmm alhamdulilah ndongali si Ndam Ndiaye. Euh, soxna soosu ma la lay wax moom ngi tudd maam jaara mbeng euh, mi ngi fi bàyyeekoon la vingt cinq bale passé ci weer bee tey la am ci dimaas ji may wax ak yow tey jii la am ñaar fukki fan ak juróom-ñett yoo xamante ni gisaguñ ko fenn te déggaguñ ko fenn it noo ngi ñaan daal bokki julliti képp ku gis ci barab baa ngi dégg ko fenn nga jàppale ci woote ci numéro bi 78. 410 88 38 78 410 88 38 ba ci numéro Tigo bi 76 484 23 53 76 484 23 53 mi ngi bàyyeekoon ci sanc daaru salaam yi ci ñetti poto bi mi dem nag abaay bu bula la sol abaay bi mu ngi am train yu son ak yu noir moom it nag taxawaayam am na taxaw nii daal waaye taxul ko am yaram lool nag ñoo ngi ñaan daal képp ku ko gis rek nga jàppale ñu si te yàlla a tax maam jaara mbeng la tudd mu ngi fi bàyyeekoo woon la vingt cinq bale passé ay quinze heures yooyu ci bëccëg mi ngi noonu ma jigéen dafay ñëwoon ginnaaw ba mu daal woowaat Baye Assane jaaraat fi bi fekkoon na ma jigéen dama gudd nag ko ragwaade waaw ah, non waaw dama ne ko fekkagul mu dem laa ko wax dama ne ko fekkul mu dem ah, mais alaaji sa waa ji moo ma sa waa ji des fois la topp xam nga moo doon monté xam nga waa ji nee na ma nga dëgg xama Touba fan ci ñetti poto waaw mu ni ah Diop bu dee nag dé déguerpissement ba daa yóbbaale benn poto ba <laughs> nee ma élément bi waa ji daa waroon a dellu foofu comme après déguerpissement bi <laughs> xam nga topp top non top comédien la ah, est-ce que xool na ba xam Baye Fall yóbbuñu benn poto bi <laughs> nga topp day fort kon ma jigéen mu mel ni daal wax dëgg yàlla lu metti la nag ndax ba léegi xamul jabaram mi ngi dund waaye nag d'après li ma dégg ci Assane nee na ko daal fi muy dem nee nañ ko ndaw saa ngi dund. mi ngi dund. waaw xam naa mi ngi koy seetlu la ñu wax xëy na ko être ci côté yooyu seet yi dañ lay dañuy dalal sa xel rek espoir lañ lay jox ndox waaw mais vingt cinq presque vingt la vingt cinq ba tey la lan waaw bokkut ak bokkut ak yi asal tey la vingt ah? euh, la tey la vingt quatre tey la vingt quatre waaw kon suba lay am weer manqué benn fan la en tout cas yàlla ko yàlla suñu borom bi ne surtout boo bàyyi ay xale yu ndaw nga dem luy bëgg a màtt weeru yàlla fa dëgg yàlla dañ doon gis nag ñu réer daanaka bu defee semaine rek ñu daal di feeñaat euh, bii moom est-ce que moom xool nañ ko aussi tamit xam nga jigéen ñaa ngi dugg ci gaal yi de ah. c'est très ah, parce que foofu fan yii li may jot ci ay vidéo moom ay jigéen yu dem ay xale la jigéen ñu baree ngi dem ci gaal yi. waaw loolu moom dëgg la moom. waaw ah, waaw parce que loolu foofu tamit war nañu ko creuser de. xool waaw parce que dëgg de mën naa dem ci gaal yi de. sagam mën naa dem Nicaragua kay ku ne mën naa dem. fi nii moom gaal yi moom ku ne ngi départ. Mm. jigéen ñi bu njëkk ba dañ daan toog xaar góor ñi dem ñëw takk jabar def nii léegi mais phénomène loolu war nañ ko xoolaat ah lan moo waral léegi jigéen ñi jékki-jékki rek màbb. ak jom rek. kese jom jom. encore toog fii taxut am jom. non genre bëgg bëgg. yaa ngi ni toog fii am jom ba bëgg di takk sa ndigg boo jógee sa kër 6 heures de matin daanaka yaa ngi fi duggaat ngoon waaw loolu dëgg la mais xam nga bu fekkee ni li nga bëgg boo demee togg sa soo soo demee xam nga àddina bi moo moo léegi gis nga sa réew mi war nañu xoolaat mbir yi bi góor ñi commencé di wax naan léegi ñoom duñu takk hmm. euh, kii social cas social cas social ci la jigéen ñi fi boobu la problème parce que góor dañ laa xam nga takk jabar yor ko kii kook yooyu léegi góor ñi bëgg ku leen yor kese pourtant wax nga dëgg de am yenn jigéen ñoo xam ne ñu ngi koy nangu da nga naan lu mu yor sax da ngay ko naan moom lu muy liggéey hmm. te bu njëkk dañ daan léegi bu njëkk bu góor lañ daan laaj lu muy liggéey léegi góor ñi waaw waaw ku kuy bëgg kii nit sax dañuy ko dañ lay laaj lan lay liggéey kon alaaji hmm? ban situation la nekk Assane kon il faut kon mu posewaat jëkkër ji ndax jabar ji da doon liggéey wala fii ndax mu ngi doon yëngatu ci dara il mu laaj ko loolu bu fekkee nag ku yëngatul woon ci dara moom jàpp ma ni am na pexeem tukki mais bu fekkee ku nekkoon di dugal ak a génne ci ay yëngal lugal kii ak yooyu waaw ah laaj ab xalaat la rek na ko laaj ndax fan yi li may jot ci image ci gaal yi hmm. ay jigéen ak xale bari na mën na bañ a ñàkk yëngu si dara sax gisoo femme boobu noonu nga fi tegoon dafa ne moom bu muy dem amul woon paas dafa dem nee na ba mu àggee amuñu choix dañ koy bàyyi mu dugg donc lépp si mën a nekk femme boobu nga tegoon fii si rajo bi ba muy dem nee na yorub dërëm te bu mu àggee daa dem mooy ñi ñu ñi ñuy wàññeeku woon kon ba subaak jàmm incha allah alaaji kon tey maafe la ñuy añi ah maafe maafe boo dindee digalegage mu nekk baase xanaa mu nekk baase jërë ngeen leen bu baax a baax incha allah subaak jàmm incha allah daañu fi teewaat